gàmmu Ngéet gàmm la goo xam ne comme ni ko gouverneur waxee sëriñ bi fàttali ko gàmm goo xam ne ñu ngi ko sos depuis 1902 ren nekk ci e édition ci gàmmu Ngéet gàmm goo xam ne Maulana Maam Gor Sané Niang radiyallahu taala anhu moo ko commencé woon doon ko def ba tey mu jaar ci ay xalifaam ba tey mu tombe ci xalifaam Maam Cheikh Faty Niang mu jël lépp teg ko ci sëriñ Alhaji Ousmane Niang mu nekk coordinateur gàmm gi waaye nekk porte parole famille bi. gàmm googu nag tey moo ci CRD bi ñu ñëw taseeg le gouverneur de la région Alhaji Bouya Amar ak euh, ki nga xam ne nii préfet de la région de de de Linger, préfet du du département de Tabarakallah al hadji Latir nga xam ne CDD bi nga xam ne defoon nañu ko ñu dellusiwaat defaat CRD ngir suivi ci point yi nga xamné ni demandé won nañ ko yalla dogal né ñi nga xamné ni moy chef de service yi fi téwone yëpp ak teewaayu sëriñ bi lépp li nga comité bi comité d'organisation. la laajoon nañ ko mu nekkoon seen demande nekk ay besoin soxla yooyu yëpp ah rassurer nañ ñi li nga xam ne moom la ñu laaj ren mooy dañu bëgg président de la république li nga xam ne moom la wax ci modernisation des sites religieuses ñi boole ci li nga xam ne nii jolof surtout waaye rawatina li nga xam ni moi mooy parce que loolu en ngeet li nga xam ne nii boo historique bi historique gu maam Góor Saane Ñang radiyallahu taala anhu li mu liggéey ak li nga xam ne ni ñoo fa nekk ci ay taalibe waaye rawat na li nga xam ne ni ñoo fa nekk nekk njaboot gis nañu ne li war a tax ñi war ko am yëpp dajoonoo la ngir loolu ngeet wala jorof war a am loolu ci wàllu wér gu yaram sëriñ bi dafa wax ne euh, jolof am na loo xam ne dañ ko soxla ci ay matuwaay

sëriñ bi ne gàmm ngeet dina ci dimbale population bi nu leen dimbalee sëriñ bi woote ay ñi nga xam ne nii ñoo ay professeurs yi nga xam ne ñoo lañ soxla di jël ay rendez-vous pour ay mois mënoo ko am sëriñ bi indi leen ngeet li nga xam ne nii mooy préparation gàmmu ngeet ne leen dama bëgg ngeen jaamu yàlla ci jaami yàlla yi naka la ñu koy defee mu ne def leen ay consultation gratuite consultation yi nga xam ne da ko doon fay di déplacé wu di ko fay di am jafe-jafe jugee Jolof xamoo fooy dal sëriñ bi ne nañ ñëw ñi def ko ci gàmmu ngeet dimbale ci li nga xam ne ni mooy population bi jàmmuwaale yàlla